Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, le Sénégal entretient des relations diplomatiques avec le Cameroun depuis les indépendances. réew mi di Sénégal am na ay relations diplomatique yu mucc ayib euh, ci digganteem ak Cameroun depuis ba ñu amalee ay indépendance tey yi Sénégal taxaw na tem ngir rek euh, mën a garder vision panafricanisme boobu boole ki tamit euh, di ñaan ngir ñu nekk ci wàllum intégration africaine bi nga xamante ne bu baax loole nag autorité yi nekk fii ci Sénégal feddaliwaat nañu seeni kollore waaye it seeni taxawaay ngir rataxal diggante réewum Sénégal ak réewum Cameroun na ba tax na autorité yi nekk ci ministère des affaires étrangères bu Sénégal waaye it naka noone ñi nekk foofe ci Cameroun dinañu taxaw mën a yëkkati niveau coopération internationale yi waayit it coopération bilatérale yi nga xamante ne yooyu la ñu am diggante ñaari réew yooyu ci loolee daañu def it kéemtalaay kattam ngir ñu amal ab partenariat stratégique bi nga xamante ne dina amal njëriñ ñaari réew yile Cameroun ak Sénégal ñu boolek di renforcer seeni diggante ci wàllum économie waaye it dinañu yokk it tamit volume échange commerciaux yi nga xamante ne yooyu lañu ñu war a amal ci diggante ñaari réew yooyu le te loole nag daañ ci boolewaale secteur privé bi nga xamante ne nekk na pàcc bu am solo ci dundu réew yi. dont j'ai fait mention au début de mon propos qui avait jeté les bases de renforcement de l'axe Dakar-Yaoundé. C'est ce même traité qui a aussi institué une grande commission mixte de coopération qui à ce jour s'est tenue quatre fois alternativement dans les deux pays.